jiitu ñenn ñi ci làmb ba may leen sens bébé ziar na la. oui maa ngi lay ziar di delloo bëggee di jox sa wàccuwaay ginnaaw bon sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur di gërëm ahlu bayti rasul gi yëpp di wax suñu yaakaar yi àddina ak alaaxira wa ahlu bayti rasul suñu yaakaar Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam yàlla yàlla yokk si leeram taax ñu si barkeem imaam Doudou Makhtar fi nekk yàlla ko yàlla bàyyi mu gudd fan am wér-gu-yaram ak wér ak wér la ak mboolem xalifa général yëpp yàlla defal ñu jàmm defal ñu sutura defal ñu ndam ba bis mi jugee si kombaa sa digganteeg Siteu bu Ngor. Mhm. sa avant Siteu bu Ngor si Baba Jaxal nga jugee. Mhm. nga tourné waat xale. Mhm. waaw laa ñun xale ñooy bëre suñu biir dama leen jiitu si làmb rek mais ay xale la ñun ñëpp. ba bis jël ñetti xale yu nekk si yoon ngaa jël Baba Jaxal jugee fa jël Siteu bu Ngor tourné jël jeex jàmm lu waral loolu. waaw loolu lépp déggoo li ma wax ma ne làmb ñun xale ñooy bëre suñu biir te xale bu fi prouvé rek war nga bëre ku nekk te làmb ji fii nii xam nga man bokk ma si ñoo dañuy taamu yoon xool di xool fu nooy man na metti rek te daanoogul daf may neex pour mu bëreeg moom. na metti te daanoogul mbër bu daanoogul ta metti ah. loolu daf may neex pour muy bëreeg moom. pour muy waaw tey ji nga jël jeex jàmm moom nee na moom fu jàmm amut fu jàmm bokk moom bokk fa moom dafa jàmm ma jeex. yow nga jël ko. waa mais la jour ji dina bëgg a jàmm jàmmatu ko dafa jeex jàmm kay mais am na jour yoo xam ne tey soxla jàmm jàmm da koy eh. allah rabi dimanche bi dina soxla jàmm jàmmatu ko du xam fu jàmm nekk. nga ne génn géej samb la 15 dina. dina wër jaamu ba son du xam fu nekk wallahi azim. eh wallahi. loo ko naral. non naral moo ko dara jàpp daan rek laa ko naral jàpp daan duma jàpp duma daan kase kase. jàpp duma daan. waaw yomb na ne bébé. waaw mais tamit sama gëm-gëm laa ak li nekk si man li ma xam du ma ñëw si biir géew dama fekk la nga tëdd soulagé mel ni ku sedd. non c'est du ma sax xam nga ñun Cambérène fii géej gaa ngi tout pare xam nga fii day mm-hmm. xaw a kii xam nga brise yooyu xam nga mm-hmm. bu ñu toogee suñu gaal dañuy soulagé xam a xam daal mm-hmm. ma seeti ko mu ne ma idi ki may bëreel français la leen yoo xam nañu ba bis mi français ma ne ko lu loolu yow man si biir géew français laa wala ah wala nit suñu comportement bi ñuy jot nuyu ak suñu xam nga bu nekkee bu nekkul si lamb bu ñu taxul jaajee def yooyu noonu mm. dañoo war a ñëw xam nga def fu dof wala yëfu kon non ñun bu nu taxul ngemba taxuñu jaaj dañuy nekk si biir doomu aadama yi dund ak ñun doomu aadama yi ko dund réalité leneen moom la ñuy dund làmb làmb la après làmb nag da ngay dund dund noobul mbër noobul la de. mbër noobul la moo tax ñun dañuy dund dund noobul dund dund boo xamante ni mooy loolu fu toog dañuy xàppi quoi mais bu ñu duggee si biir bi nga xam ne kii nii gaynde la mbër la. nga jël jeex jàmm fi tey nii. Mhm. séntu nañ ci bépp bis mu samp jaaga nag jeex moom nee na doo samp ak moom. waaw man ku ma ku may bëre nga naan bis du samp jaaga da ngay wax lu la neex man su may bëree ñaar laay daal si làmb duma daan wala jàpp daan ñaar yooyu laay di si làmb andiwuma leneen loolu si làmb. loolu combat bi ñeme ngaa samp jaaga sa diggante jeex. su ñëwee bëre si ma xeex moom su ñëwee xeex ma bëre moom. maanaam da ngay dëpp carte gi. ah man noonu laa fi nekk si làmb ma làmb lu mu ñëw rek mu indi la sa des parce que ñaar yëpp laa mane ñaar yëpp laa foogu ñaar yëpp laay def su ma dem làmb ñaar yëpp laay yóbbu bu mbër ñëw indi ma indi ba sa des. maanaam bu mu indi da nga indi ba sa des. yee loolu laay def waaw. xale soo dee soo dee xeex damay ñëw bëre. Hmm. soo dee bëre mu ñëw xeex. moom de nee na moo koy def. jeexali. ngay def. jeexali contrat <laughs> présenté wu ñu xam ne bee bis mi ñëw na. waaw loolu moom koy def moom ñu xam ne bee bis mi ñëw na dañuy xam ne bee bis ñëw na. nee na loolu la nga fa am. yow boo ñëwee yow li euh, dinaa ko wax leen benn affaire boo xamante ne dinaa ko wax benn affaire boo xamante ne na si bàyyi xel bu baax. bu aar bi sifflé. maay attaqué bëri maay daan. eh. benn song bu ma song jeex. kon moom lu mu fay def. dara xanaa li fay def ñu longu ko dem ñibbi ñibbi. mosagul dégg mu ñël. dina ko dégg ku dul dégg mu ñël amul. dina dégg mu ñël bi six combats six bi ñëw combat bi ñëw mooy six combat am ah. septième défaite premier defetam. waaw mooy septième bi laa mooy septième bi mooy defetam. mooy defetam incha allahu rabi. eh, eh bismi dafa mel ni gaynde mer dafa naanoo de. non du ay mer sax man sama comportement si làmb lii la man sama làmb chaque jour li may wax laay gëm moom laay def du ma wax la man gëw ma ko te ko def. mais bis bi moo si ñaata combat. ah macha allah bari de en tout cas xam naa ne moom am naa 22 victoire xaw ma. waaw 22 victoire waaw. am naa ko waaw. ila ila. waaw. sa génération ñu ko si am bëriwul. kenn amu ko si. di teel a bëri la wala bëri combat la. non teel a bëri non bëri man boo xoolee deux mille quatre mille quinze laa bëri. deux mille quinze a dugg si waaw deux laa dugg mais sama sama commencement saison sama premier saison rek ñaar six combats laa def. première saison six combats laa def sama quatrième mu ñëw def ñaar cinq combats après def quatre commencé def trois combats ay trois trois commencé def deux combats deux combats xam nga. xam affaire lu muy gën dox combat day am écart mhm. saison bi rek de macha allah rek bii mooy sama deuxième combat saison bi waaw sama combat yi même pas amul un mois dama génn si combat rek amaat combat même pas deux jours. nga jëm si la quinze muy Pof production at Fat Ndiaye production lan nga leen di wax bu jour ba lan la ñuy xaar si bee bis. waaw bee bis bi li ñuy xaar si mooy li ñu soxla si moom ñëw mobiliser jàpp bëre daan amateur yi kontaan supporters yi kontaan ñëpp a kontaan ñëpp xam ne adversaire bi ma jël. du maa ngi moom maa ngi si kaw la non dañuy mobiliser macha allah sant yi rek ñu ngi doon woo njaay ni mais ko jot pour wàllu waaw ñun moom bëgg nañ teel a jël suñuy billet xam nga féete boor quoi hmm. waaw dañuy mobiliser ñun moom moom moom côté moom waxuñu ko moom ñun xam la la ñuy wax hmm. adversaire bi ñëw rek si jàmm ak salaam ñun ñëw si jàmm ak ñu bëri ñu daan ko mu dem ñibbi moment bi moment woote la ñu bàyyi la nga woote waaw di santaat ñi ma daan jàppale ñëpp rek ñëpp képp ko xoon da nga daan jàppale bis mi ngi lay woo si kombaa bi di la gërëm di la sant waaw ñëpp ñu daan jàpp si bee bis mi te ku doon jàpp si bee bis ak combat bi combat bi nag ñun maa ko jël sama responsabilité bopp. kaw yaa ko jël sa responsabilité bopp. waaw ba si wàllu financement yëpp maa ko defal sama bopp waaw loxo kenn duggagu si. combat bi daa parce que man maa demandé gul kenn sax pour mu jàpp si. man maa ko fas defal sama bopp defal sama moyen bopp yëpp defal lépp demal sama bopp amal sama bopp ndam incha allah ànd ak samay supporters parce que combat yi paas ñi si dafa bari te combat bi dafa jegente ba dul même pas un mm-hmm. xam nga te ñooñ doon si jàpp tamit ay kilifa lañ dañoo ay soxla ak nit ñu leen ñëw di leen ti seen soxla xam nga li ma la wax. Mm. moo tax ma comprendre xam nga xaw a dawal tuuri compilation xam nga mënu ma dem diggante même pas un mois nga ñëwaat di leen waxaat nga te ñoom ñii taxaw seen buntu kay di farang dafa bari te ñoom tamit xam nga am nañ ay mboq am nañ ay soxla. moo tax xam nga lépp ma jéggal képp xam ne da nga doon jàppale mi combat yi maa la ko jéggal xam nga fas yéene ko gérer ak samay may bopp incha allah te dinaa dem dinaa si am ndam incha allah rabi. loo koy yóbbante kàddu gu mujj. waaw kàddu gu mujj ma koy yóbbante mooy xam nga na ñëw. ma jàpp ko na ñëw ma jàpp ko daan ko dem ñibbi rek kase. bu xeexee bu xeexee mu duma ko bu bëree ma daan ko. waaw mais képp ki xamante yaa doon jàpp si biir bis rek fàttew ma la dama dawal compréhension moo tax ñëw ma si yow xam nga ndax combat diggante yi ñoo jege moo tax ñëw si ñoom ku si mel ni xam nga sunu maire monsieur le maire xam nga duñ paate boo ñu gisul rek looloo ko waral yaa maam sunu député boo ñu gisul looloo ko waral papa mbay Thiaw xam nga Libaas Samba Aliou Samba Pape Matar Samba xam nga moo ñang ngi naan xam nga euh, Ablaye fay ku si mel ni Miracle Fall Seynab Fall xam nga Rane Samba gaa yëpp koo mënti ni rek daan nga jàpp Papa Ndione Samba xam nga koo mën da nga daan jàpp si biir bis bi rek gisoo ko rek libaas mbay kan xam nga ñoom ñëpp gaa yëpp koo xam ne gisoo ko rek si combat dama xam ne distance bi moo jegante moo tax xam nga ma ma jéggal leen ko quoi yee. kon ñu ngi lay remercier bu baax a ñu ngi lay fay jaajëf faay. kon merci beaucoup. di bëggee waat ñëpp rek di ziaraat ñëpp ngeen ni mu demee xam di bëggee nag kenn si man nag. Alaaji Laay taalibe Seydina Limaamu bi maa ngi lay bëggee bu baax a baax borom ñaari soxna yi maa ngi lay bëggee bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay bu wér a wér di la wax yow dundal sa dund am na si njëriñ bàyyi mooma laay yow dundal lu bari doole yow maa ngi lay bëggee bu baax a baax a Alaaji Jide bëggee ziar màggal warmaal saa su ne